asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet du chaîne football TV nuyu na len bu baakha baax ziar len di wax kep koo xamantene nga ba si chaîne bul xaar abonnel cliquer si cloche bob ngay gis vidéo bu ñu nga mën ko seetaan bul faté tamit un vidéo c'est très important mbok yi nak tay damay ñëw jox len euh, ay xibaar yu xamantene ci mercato des Lions la laataa nag may def lolou dama bëgg ngeen dem sama ñaare lu seen chaîne football TV 2 c'est très important dem len ci description bi amna na benn lien bu ñu fa def bo len fa demee ngeen abonné di ngeen ma jappalé bu baax baax na dina am mercato fofu découverte lepp lu xamantene soxla ngeen ko rek incha dinañ ko yobbu fofu tay nak mercato bi bi euh, dañ koy dooree nag si euh, booy bi xamante ne moo ngi Soso am 19 ans nekk franco sénégalais ma koy suivre bu baax a baax muy Rasoul Ndiaye Rasoul Ndiaye nag 19 ans la am dañ ko prolongé contrat am ba 2024 lan moo tax waa Soso def loolu parce que dafa nekk jour bu xamante ne voilà boo xoolee ñaari at yi moo ngi quand progressé mu commencé un temps de jeu man sax ak euh, ñoo Nambi dañ Sénégal donc euh, c'est un joueur à suivre vacances rek nékkon na Sénégal xam ba Diop parce que moi Diop ñoo ngi soso donc xalé bu ndaw la damay wax Pape Pape tamit ko bu baax baax franchement bu ko sax révélation temps de jeu mu am da ngay gis centré il est quand même collectif et tout mais euh, concurrence bi foofu noonu dañ ko baare carrément ba tax na nag waa Metz xam nañ ne euh, dafa nekk ci yoon xale la dañ ko bëgg a au niveau de Belgique si benn équipe bi ñuy wax Sereng donc euh, foofu lañ ko bëgg a prêter les idées sax ñoo ñuy xamal ne daanaka lu néew moos des pour que mu officiellement ah, mu dem foofu carrément xam match bi passe sax maa ngi koy gis compte Instagram mu nekkoon si tribune yi donc moo jógee foofu damay wax si Boubacar Camara Boubacar Milan AC Newcastle Séville kay bay xel bo xolé micro bi muy soog dor Milan AC lañu doon gën wax mais jamono bi waxatu ñu Milan AC ci euh, biir semaine bi rek waa Newcastle joxe nañu offre 14 millions d'euros wa Marseille dañoo làng dañoo lànk carrément surtout sen président Longoria muy président bi nak mom Séville la ko bëgg jaay wa Séville nag dañoo bëgg jaay euh Koundé Koundé buñ ko jaay boba dinañ mëna a jënd Boubacar Camara Séville nag dafa xam lool bu baax a ay joueurs yu mel ni Ocampos ay joueurs yu bëri euh, sen défenseur bi ñoo ko jëndee Nantes ñoom à chaque fois euh, dañuy dem championnat France jël fi ay joueurs après ñu lu seer a cher bu ma jógee foofu nag damay wax si Keita Balde nag moo gën a Inter de la moo tax ñu ne moo gën a Inter de Milan simple ñëpp gis nañu Lukaku euh, dem na fële euh, Chelsea officiel na maintenant léegi comme que Lukaku dem na foofu bàyyi na place attaque bi foog ñu dooleel seen équipe te ñoom li tax euh, Keita di leen amal solo bu baax a mooy que non seulement seerul ba pare entraîneur bi xam na profil Keita Baldé vu que yoroon na ma fële ne la Lazio de Rome muy Simone Inzaghi donc euh, Keita Baldé moom lu néew moo des ñu ngi koy gis si compte Instagram mu ngi entraîné bu baax a baax a baax nekkatul mën a koo xam ma donc lu néew moo des mu signé euh, Inter de ma jeexalee xibaar yi wax si Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr si biir semaine bi ñetti xibaar génn na premier xibaar bi njëkk a génne mooy que waa Tottenham xam voilà euh, bëgg nañu ko xam bëgg nañu trop bëgg nañ ko def nañ ko priorité sax la wax bu ma si ay taskatu xibaar yu ñuy wax Eurosport ñooñu ko xamal ñooñu wax ne nag 60 millions d'euros gars bu ñu ko génnee gars bàyyi ko mu dem quoi waa Watford bëgg nañ ko téye mais 60 millions d'euros xam nga ñu xamal ne sax Tottenham ak seen entraîneur Nuno Santo pare nañ pour def ko ah. donte ñoo ngi wax Liverpool Liverpool Liverpool jaay nañ Sakri ba tey tamit waa Liverpool ñoo seen xalaat ak seen gis-gis ak comme ni mu leen ko waxee ah bu leen ko fàtte gars yi description seen football TV 2 xam ngeen dem ngeen cliquer ngeen abonné xam ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen